Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Voilà, Achim, Satik. gi njuuj njaaj ak dund ci kaw Sénégal yi moom dafay Voilà, moom. <laughs> Guys, j'espère que vous allez bien. Je vous demande de partager à max cette vidéo. J'aime que je vous le demande. Si vous voulez de partager et de vous abonner aussi. En attendant, vous pouvez avoir votre parfum au Sonko, ninasahel.com. <laughs> bon, accusation nak bu mak mo jógee fële ci Espagne au Sénégal accusation de taille bon xam dañ ko prendre au sérieux Wadi dafa jóge Sénégal aéroport Blaise Diagne pour dem Angleterre jël compagnie bi ñuy wax violin est-ce que xëy dafay dégg <laughs> bi mu ko jëlee dem ba Espagne mu Escalve. mais se trouve que avant mu jóge fii nii dafa amoon un excès de bagage ñu ne ko da ngay dem fay ko ñu dem mu dem ñu laaj ko cent quatre euros maanaam cent dix mille trois cent quelque chose comme ça moo nekk reçu en tout cas <laughs> ma calcul bon biñ ko laajee euros mu fay ko jox ko reçu mu dem ba def mu ne vol bi bu ñu xëyee ci suba jëlee ko hôtel boo xëy suba war a demaat ñu enregistré waat bagage ñooñu tamit vérifié bagage yi nga am excès de bagage donc bala ngaa ba faaw nga <laughs> donc

waaye enregistré wuñ ko maanaam paiement bi duggul yëpp yaa bi duggul ñu ne ko ah comment ah, est-ce possible pourtant ñu wan ko plateforme bi nga xam ne ñoom seen compagnie boobu képp koo xam ne fay nga ak loo mën a fay foofu lay affiché ñu ne ko lii affiché wul fii li nga fay duggul duggal luñ ko lu ngeen xalaat borom xel yi laay waxal maanaam sàcc am na foofu en plus nous pas ko non attends ñu vérifions, le chiffre d'année 180 euros comment est-ce possible qui est-ce qui doit payer 180 euros pour un excès de bagages Nous, n'avons 50 euros là. madame excès de bagages 10 le 50 euros pour ko ci verso. loolu la ko tubaab bi wax waa compagnie bi ña nekk service d'escale ba nekk ci Espagne ñoom ñoo ko wax na ko service d'escale bi nekk Sénégal enregistré fay loo fay na nan la fay nga leen c'est vrai que c'est marqué ici mais enregistré wuñ ko waaye man bi ma man li tax man ma déduire na sàcc la ak lekkaayu xaalis maanaam aéroport bi li fi xew mooy que ne ñoom waa Sénégal reçu bi ñu joxe stylo lañ ko bindee. te ñi la dañ koo numériser moo tax ma xam ne Sénégal tant que ñu ngi resté ci papier ak bind ak feuille corruption du fi jóg lekk xaaj fi jóg ger du fi jóg sàcc du fi jóg ak dund ci kaw Sénégal yi du fi jóg benn point boobu na nga lu ñu war a régler numériser tout beneen bi des mooy waaye ñun tubaab yi lan lañ ñu war a gënee ba war ñoo gën a maandu ba tax na ñun lépp ñun Afrique lépp luñ dugg rek duggal ci sàcc ak njuuj njaaj ak diil nit ki noo koy enregistré leen ay bagages am au lieu nga enregistré ko fi mu war a dugg nit ñi xam ne enregistré parce que ñu bëri ñu ngi dem voyager ñoo xam ne Sénégal bi ñu leen voyagé rek dañuy xalaat may ok c'est bon naa voyagé rek loolu la fay la nga koy fay alors que yaa ngi fay sax loo xam ne si waroo ko fay tubaab yi bu du woon ak kii escale bi mu dem ñu def ko lii nii ñu duñ xam ne ñu ngi ñuy sàcc xaalis bu bëri imaginer cinquante euros ba cent quatre-vingts euros quatre fois presque non c'est honte Sénégal li fi am àdduna bi sax Afrique li fi am c'est honte dama sax rus il y a ñoom di wax ok c'est impossible qui est-ce qui peut payer 180 euros pour un excès de bagage de dix kilos non nañ en Afrique nañ xam ne suñ Afrique ñoo ko moom ñoo ko defar ba un problème et un problème sàcc gi bëri na noot gi bëri na jël lu sa loo moomul bëri say say propre koy def rongoñ sax nga bëgg a tuur voilà ma yamale fii vidéo bi s'il vous plaît partagez leen ko ngeen zamane waaye s'il vous plaît yéen tamit